77 046 96 23 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax rafetlu suñu ànd ak ci suñu gal 24 mbokk yi asalaamaaleykum dal leen a jàmm ci bile jotaayu xibaar ñu ànd ak yéen jukki leen ponk yi ci gën a fës dooree ko ak Déthié Fall mi nga xam ne da doon dal di officialiser démb parti politique bi nga xam ne moom la dal di nag euh, sañc muy lu yees dippee ko euh, parti républicain pour euh, le progrès dal di koy dippee diisoo ak askanu Sénégal mu mel ni dal dinay dëggal boppam li nga xam ne moom moo di ci làngug politique dinañ ko yaatal ci biir xibaar yi kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko fa niki démb ngir xamal askan wi lan mooy position ci réew mi di Sénégal bañ ca noppee dañ ci toftal li nga xam ne moom moo di délégation bu takku bi activiste yi amaloon niki ci week bi dem seeti xalif général kulli murid di sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke doon waxtaan ak moom ci euh, li nga xam ne def na ko euh, ci réewum Sénégal ba jàmm dellu si waat rafetlu ci dinañu ko yaatal ci biir xibaar yi euh, kan ak kan moo demoon ca fa nga xam ne moom moo di Touba ngir janook xalif général kulli murid ki nga xam ne moom moo di Assane Diouf daal ñuy wax ne nag ci na ay kàddu jëmale ko ci ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko la mu wax ne Ousmane Sonko euh, fii lekk moom Assane Diouf mi ngi noyyi du mës a jël réew mi di Sénégal li ko waral mu di euh, kii di Ousmane Sonko ab manipulateur la tey itam coow li nga xam ne moo am ci réewum Sénégal ci fan yi ñu génn moom moo ko daal di euh, waral dinañ ko yaatal ci biir xibaar yi ki nga xam ne moom moo di jarbaat ci Thione Ballago Seck mi fi bàyyeekoo ni kii fan yi ñu weesu di mbay Sy Ndiaye dal dina yëkkati ay kàddu ñaawlu bu baax a baax li nga xam ne moo amoon ca euh, fa nga xam ne fa la ñu doon dencee nijaayam jooju di coon sekk ca yoof ni nga xam ne ni la fa site yi defoon ñenn ñi ñëw ngir rek wut si bës jël seen i téléphone di filme waaye itam ci na ay seede daal di koy jëmale ci ndemti yàlla nijaayam jooju di coon balago sekk ñu jeexale ko li gën a fës tey ak li nga xam ne moom moo di tolluwaayu mbas mi ci biir réew mi euh, bu ñu sukkandikoo ci bésub tey euh, yemoo ki ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars ak communiqué bi nga xam ne ministère de la santé de l' action sociale dal dina koy amal mbokk yi xarit yi lii mooy li gën a fës ci ponk yi ngeen taxir lu bàkk bi jàll ñu faramfàccee nuyuwaat leen ci gën gi nuyoo mbokk yi ñuy seetaan ci suñu vingt 24 ni ñu leen ko junjee woon ci boppu xibaar yi noonu la ñu koy faram-fàccee dooree ko ak Déthié Fall mi nga xam ne dal dinay samp partiem bi nga xam ne moom la dippee parti républicain pour le progrès progrès li ko ñeel mu di diisoo ak askanu Sénégal ba waraloon niki de mu mu doon def li nga xam ne moom moo di. officialisé boobu les partie te ñu gis ne yenn ci euh, homme politique yi nga xam ne ñoom nekk ñoo nekkee ci opposition bi daal dinañu fay teew ngir euh, dal di koy euh, jox loxo kàddu yi nga xam ne Déthié Fall daal dina ko fay yëkkati lu waral mu dal di nag ber parti boppam boobu bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne amoon na ko ci weer yi ñu weesu ci assemblée nationale li ko waraloon di jafe-jafe yoo xam ne doxoon na digganteem ak ki nga xam ne moom moo di président bu conseil économique social et environnemental di Idriss mu ko teppilee ndombal tànkam li nga xam ne moom la ko takkaloon di vice président bu parti réew mi niki noonu la seen coow dal di door ba waral moom mi nga xam ne moom moo di Déthié Fall dal di fippu ba ber li nga xam ne moom moo di parti boppam ñu des ci Déthié Fall ak parti bi nga xam ne daal na koy euh, samp te ñu gis euh, nag ne am na ci ñoo xam ne jóg nañ ngir daal di koy dooleel moon di ay leeral ci lenn li nga xam ne jot na ko dund ci assemblée nationale euh, ba noppi daal di wax ne lu ëpp ay at a ngi nii maanaam ci atum 2017 ba léegi moom jëfandikoowul benn yoon li nga xam ne moom moo di salaire ak bon yam fa doon am mu mel ni ci askan wi la ko doon delloo ji waat te bu ñu ko tànn loolu li nga xam ne moom moo di privilège am ak peuple bi day daal di choisir li nga xam ne moom moo di peuple ñeel askanu Sénégal ak li nga xam ne moom mooy jëmale réew mi kanam moo ko bàyyi ci assemblée nationale ba léegi ñu des ci li nga xam ne moom moo di euh, lii di parti euh, bu euh, Déthié Fall bi mu doon officialisé ni kii dem boo ñu gis ne Mamadou Goumbela dal dina fay teew mu doon kenn ci ñi nga xam ne dal dina ñuy sës ci Idrissa Seck ab teewaayam foofu nag moom Mamadou Goumbela dal dina koy leeral ginnaaw bu mu janoo ak taskati xibaar ya kàddu ya mu njëkka a yëkkati moo di ab teewaayam foofee taxul benn yoon mu dal di ànd ak ki nga xam ne moom moo di Déthié Fall ci parti réew mi lay toog ku dem bàyyi ko fa te ku ñëw it fa nga koy fekkaat waaye dafa fekk ne mook Déthié Fall jàmm la ñu sekk li waral mu dal di dem ni ki démb ngir dal di koy jàppale waaye du mës a wan ginnaaw ki nga xam ne moom moo di Idrissa sekk ndax Idi moo ko dal di mettre en rapport ak ki nga xam ne moom moo di Déthié Fall ba yàlla def tey seen relation jàmm dal di ci am ñu des ca yoof ak la nga xam ne daal na fay am ni ki démb te ñu ko fay faral di gis eh, ginnaaw fanweeri néew ak juróom-ñaar yi nga xam ne ni ki démb la ñu leen doon jébbal seen association pour la solidarité et la perfection euh, bi nga xam ne moom la ñu créé ci atum 2012 te ay ndaw yu nekk ci réewum Sénégal ñoo yor boobu boobule association ngir taxawu ñi nga xam ne nii dañoo nekk ci ay jafe-jafe wala ñii génn àdduna euh, te amuñu kenn ku leen taxawu dal di nañu leen di jébbal seen borom ni ki démb ñu dal di def xayma nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk fanweeri euh, nit yooyu ak juróom-ñaar ñu di ay malade mentaux ak ñi nga xam ne. def nañ ay accident euh, te seen i mbokk jël siw leen ñenn ñi am nañ ay pièces euh, ñeneen ñi ci des euh, kenn mënu leen identifier ba léegi ba waral ñi nga xam ne ñoo fa teewoon ni ki démb ñu di ay imam ak ay jullit ñoo fa dal di ñëw ngir jiite leen julli ngir jébbal leen seen borom te mu doon loo xam ne ñenn ci kanu senegal dal di ñu koy rafetlu ñu wax ci président union de magistrature bu Sénégal di Souleymane Teliko coowam ak Madiambal Diagne mi ngi bëgg a doon lu yi nga xam ne kàddu yu jàppee ne Madiambal Diagne daf ko daal di yëkkati ngir teg ko ci euh, ndoddum Souleymane Teliko ci lu ñeel wàllum xaalis boo xam ne daf ko encaissé na maanaam ci union européen ak li nga xam ne moom moo di xaalis boo xam ne itam jëlee na ko ca gouvernement bu Tchad ci mission bu nga xam ne amaloon na ko ca réewum Tchad mu doon kàddu yoo xam ne tax na Souleymane Teliko daal di yónnee li nga xam ne moom moo di ab citation directe ma jàmbal Diagne ba noppi daal di jël dossier ba teg ko ci loxool maître Bamba Cissé ak ki nga xam ne moom moo di maître Clédor Ly ngir ñu dal di nag def ci seenub liggéey ngir ñu mën a àtte ki nga xam ni moom moo di Madiambal Diagne ak kàddu yi tuuma yi mu ci teg ko ci ndoddum euh, Souleymane Teliko ñu dem fa nga xam ne moom moo di jam euh, ñaajo euh, ca euh, sphère ministérielle ba nga xam ne moo fa nekkee di batiment bee ba dafa daal di tàkk ni ki tey bu ñu sukkandikoo ci RFM mi nga xam ne ñoom ñoo daal di indi yooyu lee xibaar waaye daal di nañuy bind itam ne xamuñu ba tey lan moo waral loolu le tàkk tàkk ndax sapeur dafa yéex a ñëw ngir fay googule lakk ba tax na am na ay dégâts matériels yu bare bari yu fa yàqu waaye waxaguñu ne benn nit ñàkk na ci bakkanam te ñoo di eh, police eh, scientifique yi itam ñi ngi wëyal di def seenub liggéey ngir xam a na lan moo waral googule lakk ñu wax ci Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ginnaaw bu mu defee geste bu rafet yëkkati lu tollook juróom fukki million ci xaalisam dal di koy jébbal famille ñi nga xam ne jot nañoo ñàkk seen ay doom ci manifestation yi jot a weesu ci réewum Sénégal dal dinay yëkkati yi cant ak ngërëm ngir jëmale ko ci askanu Sénégal rawatina njiitum réew mi ginnaaw bu mu ko joxee nopp bu baax ba dégg kàddu yi nga xam ne moom la ko dénk ngir jàmm ñëwaat ci réew mi daal dinay sant gërëm itam ñi nga xam ne ñoom ñooy chef religieux yi ginnaaw bu ñu euh, defee li nga xam ne moom moo di seen euh, lu leen war ngir doxaat tànki jàmm ci réewum Sénégal ñaan yàlla defaat jàmm ci réewum Sénégal moom du tàyyi benn yoon ginnaaw bu mu yëkkati ay kàddu euh, ngir nag dal di jébbalaat li nga xam ne moom moo di ak njaalam famille yooyu nga xam ne jot nañoo ñàkk seen doom ci manifestation yi ci réewum Sénégal. ñu des ca Touba ginnaaw xalif général kulli murit yëkkati na yooyu les kàddu ngir jàmm dellu siwaat ci Sénégal dal dinay jot démb ab délégation boo xamante ne ni mu di kii di. di Dame Mbodj Assane Diouf Karim Gueye xurum xaax ak yeneen i nit yoo xam ne ay activiste lañu ñu ràññee ci biir réew mi la waral seenu teewaay ca Touba rawatina ci kanam xalif général kullu murid ak porte parole ba di Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké mu di doon yóbbu li nga xam ne moom moo di seen sant ak seen gërëm ci kanamu xalif bi ginnaaw bu ñu jógee nag ngir dem ci këru diine yi ngir uh, jàmm ngir uh, saafonte ñoom waaye itam sant leen gërëm leen ginnaaw bu ñu doxee tànki jàmm ci réewum Sénégal bu ñu sukkandikoo uh, ci Seneweb kenn ku nekk ci ñoom bi mu yëkkatee kàddu dafa daal di sant ki nga xam ne moom moo di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ba noppi

di sàkku ñaan ngir mu euh, dal di euh, def ñaan ci réew mi euh, jàmm dal di dellu siwaat ci réewum Sénégal comme nañu ko xamee woon ci réewum jàmm ak réewum teranga ginnaaw ña fa jot a yëkkati kàddu ñëpp am na ci ñoo xam ne daal dina ñuy nag yëkkati ay kàddu yu teg ko ci njiitum réewum Sénégal ku ci mel ni Assane Diouf daal dinay yëkkati ay kàddu moom la mu njëkk a wax moo di ñaan xalif général kullu murit dal di koy jéggal maanaam moom kàddu yi njéggalu la doon njëkk a wax ba noppi soog a dugg ci li nga xam ne moom moo nekkoon ci xolam te bëggoon ko génnee mu di ni ñu ko def ba jëlee ko ca réewum États-Unis jiñ ko yi nga xam ne moom moo di terroriste mu mel ni nee na loolu la ñu daal di defaat ki nga xam ne moom moo di Ousmane Tunkara mi nga xam ne teg nañ ko loxo ci fan yi ñu wees mu doon kàddu yoo xam ne Assane Diouf moo ko daal di yëkkati ci kanamu xalif ba ba noppi di ko sollicité ngir mu daal di koy ñaanal ngir mu mën a delluwaat ca réew ma mu nekkoon ngir mën a gisiwaat soxnaam ak njabootam. ñu wax ci faatoog ki nga xam ne moom moo di Omar Gomis mi nga xam ne faat nañ ko ci week-end bi ñu weesu taña ko defoon doon ñetti nit yoo xam ne kenn ku ci nekk Faye euh, Modou Diop ak Seydina Aliou Lahone mi nga xam ne ñoom ñoo daal di agressé ki nga xam ne moom moo di Euh, Gomis Omar Gomis mi am ñaar fukki at ak ñaar doonoon mbër ba waral doon ak fatom tax nañu bari doon ko ñaawlu ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, commissariat bu police urbaine bu Diamaguène dal dina ciy def liggéey bu am solo ba ñoom ñetti ñëw ñëpp dal dinañ leen di teg loxo ñu ngi ci loxo yoon ñu wax ci Assane Diouf Assane Diouf euh, dal dinañu yëkkati ay tuuma bind ko ci aw tuuram ne moo dal di attaqué ki nga xam ne moom moo di président Ousmane Sonko bu njiitalu Pastef kàddu yi nga xam ne bindal nañu ko ko nag nee nañu vidéo bi mu ngi ci sans limite laaj ca assan Diouf wax nee na ki nga xam ne moom moo di président Sonko tànk moom Assane Diouf mi ngi noyyi du ma sa jël réewum Sénégal ndaxte du ab patriote tey itam tuuma yi nga xam ne moom la ci gàll ci am ndoddam mu doon lu bett ñëpp bu ñu sukkandikoo ci article bi nga xam ne fësal nañu ko te yenn réseaux sociaux yi dal di koy jëlaat nee na eh, ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko coow li jotoon am ci réewum Sénégal ci fan yi ñu weesu moom moo ko dal di manipuler maanaam lépp ci loxoom la jógee ak ay nitam ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci ginnaawam te itam jël na décision ngir taxaw ngir xeex ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ba ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la Guy moo Marius Sagna doon dund bi mu nekkee ci kaso gi bu mu génnee ñu benn yoon ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko dox ci ay jéego ñu wax ci ki nga xam ne moom moo di porte parole bu gouvernement bu Sénégal di Omar Gueye àdduna wax ci lu ñeel wàllum remaniement maanaam mabalaat gouvernement bu Sénégal te ñu doon am yaakaar ne njiitum réewum Sénégal dina ko def file kay fan yu néew mu mel ni Omar Gueye dal dinay appuyer lu ni mel bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko ci émission grand jury ba mu doon amal ni ki démb ci dimanche ji nee na file ay fan yu néew am nañ yaakaar ne njiitum réewum Sénégal dina dal di ut ay nit yu baax yoo xam ne moom la askan wi doon xaar ci gouvernement bu Sénégal que muy góor wala muy jigéen dinañu dal di ñoŋalaat li nga xam ne moom moo di gouvernement bu Sénégal mu mel ni màbbal gi ñu doon wax mën nañ ci am yaakaar ginnaaw manifestation yi te sénégalais yu bari doon wax ne am na ci ñoo xam ne ay ministre lañu te poste ñu leen jox mérité wu ko ngir ñu dal di leen fay jëlee teg fa ñeneen ñu wax ci Moustapha Cissé Lo ni euh, démb euh, dal dinay dem seeti ki nga xam ne moom moo di Wally Ballago Seck ci këram nga nekkee ca Nord Foire euh, seenub diggante ñoon ñaar doon na loo xam ne askan wi yàgg nañu ko seetlu jàmm ji dox ci diggante Moustapha Cissé Lo ak Wally Seck Cissé Lo àndoon ak ab délégation ngir dem jaale ji ki nga xam ne moom moo di Wally sekk waaye itam dalal ko ba noppi dal di dalal xelam ne ko mi ngeek ci wetam tànk mi ngi fi bu mu am len lu muy jaaxle dikkaat ci seen i relation ñoom ñaar ndaka la débuté ba noppi daal di koy euh, conseiller ñu Ndiaye euh, doon euh, cousin ci Wally Seck te yaayam doon ki nga xam ne moom moo di rakk ci Papa Thione ñu bari dañu koy gis ci groupe bu Ramdan waaye xamuñu lan la bokk ak euh, Papa Thione nee na mook yaayam ñoo bokk ndey ak bàyyi la ko metti ci sa raxas Thione euh, dal dinañu koy wax ci suñuy micro ci biir Sunugal 24 nee na euh, Sénégal toll nañ ci réew moo xam ne tey jii kenn ku ci nekk bu sarax amee rawatina nit ñu siiw ñi ak lu mu mënti doon dañuy profito ngir dem yóbbu seeni i caméra nit ñi seen i micro ngir nag ngir rekk naan ma njëkk am diw mu doon loo xam ñuy profité ci lu ni mel ñuy bàyyi nit ñi ba seen xel dellu si waat ndax nit bu nekk ci naqar ngay jël li nga xam ne moom moo di euh, sa caméra di ko filmer lu mu ñaawlu la Abibou Diop ñu gën ko xam ci Baye Ili te mu ne ci ay jafe-jafe maanaam feebar bi nga xam ne tëral na ko ci atum 2017 jàpp 2018 ba léegi dal dina ci àddu wax ci euh, nee na ki nga xam ne moom moo di njiitum réewum Sénégal soxnaam rek moo ko fi daal di seet si Ngone Ndour ak ñenn ci ñi nga xam ne euh, ñi ngi ci euh, wàllum culture ñoo daal di sol seen dal seet si ko wala ñu koy nemmeeku bu weesoo loolu ñamu doon xaar ngir ñu jàppale ko dimbali ko ba léegi kenn dimbaliwu ko ci mi ngi tàllal loxoom képp ko xam ne yaa ci réewum Sénégal ngir ñu mën koo jàppale ci feebar bi nga xam ne moo ko tëral ba mënatul doxi benn activité ñu jeexale ko ak li nga xam ne moom moo di point Covid 19 ñu sukkandikoo ci communiqué bi nga xam ne ministère de la santé et de l'action sociale daal dina koy fësal tey ci altine ji yem ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars ci test yuñ jot a def ñeent fukki nit ak juróom benn ñoo dellu si am doomu jàngoro bi juróom-ñaari nit ñàkkaat nañ seen bakkan